di sant di leen gërëm di leen amati mbégte itam ci émission gox bi ñuy dalal tey ki nga xam ne moo di coordonnateur bu mouvement réaction bu parcelle Assainies Go Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal jam ci euh, plateau euh, émission bi di gox bi. ñu ngi leen di fay monsieur Dramé. Mhm. di nuyu seen euh, auditeurs yëpp di nuyu waa kër gi. Mhm. di nuyu aussi waa Parcelles Assainies. Mhm. alors. Euh, Cleaning Day depuis weer bi passé lañ ko door askan wi dañuy génn daal di defar seen gox yow nag comme mun ñu nekk ci émission gox bi temps sans ñu bañ a wax loolu alors yow ndaxam li mel démb def nga ko sa diwaan maanaam gox ak goxaan yi seetal leen ndax yow def nga ko. waaw en fait euh, d'abord balaa may wax si loolu ma wax si euh, importance su projet boobu nga xamante ne président de la république monsieur. Macky Sall moom moo ko initié. di saluer projet bu mel noonu parce que dëkk dafa war a set. Mm-hmm. tey boo gisee dëkk yu mel ni Rwanda am benn gis-gis bu nit ñi am si moom au niveau sur le plan international c'est parce que dëkk yi dañu set mm-hmm. loolu nag c'est euh, une vision forte moo koy porter mm-hmm. et cette vision un leader fort un leadership fort moo koy euh, moo jàllale mm-hmm. donc moo tax président de la République bi mu insister si loolu donc je pense que c'est quelque chose à saluer si invité ñëpp maintenant ça c'est la vision mais comment nañ koy euh, matérialiser sur le terrain ça c'est une c'est une autre question rapport ak première euh, première journée bi muy euh, le mois passé. Mm-hmm. je pense que ça a été spontané parce que président dafa génn ci discours. Euh, mm-hmm. de la nation fin d'année bi rek je pense une semaine deux semaines après ñëpp daw si. Mm-hmm. te <laughs> comme ni mu koy waxee rek. y avait beaucoup plus de folklore beaucoup plus de ah, politique. Ah ci première journée boobu. mais deuxième journée bi par contre gis naa ne les gens ont pris la chose au sérieux la logistique était là. Mhm. c'était c'était c'était c'était bien préparé en tout cas. Mhm. gis naa ne aussi nit ñi ñëw ñu en en sabador en grand boubou mhm. dañu ñëw en tenue. vraiment pour liggéey. te gis naa ne Parcelles Assainies aussi le. l'équipe municipale jàpp nañ si. ak ñeneen ñi. te gis nañ ne projet bu baax la maintenant. est-ce que ñu ngi siy euh, impliqué ñëpp c'est la question fondamentale yéen impliqué ñu leen si bon implication bi je pense que le président de la république bu waxee rek ñëpp war nañ ci impliqué seen bopp loolu c'est c'est de ça doit de facto mm-hmm. maintenant xam nga en fait mbirum seetal gox gox goxaan dafa am ñu nga xamante ne moom lañ jox les responsabilités muy le maire et l'équipe municipale mm-hmm. je pense que ñoom ñooy les premiers concernés mm-hmm. maintenant les populations dañu war am hauteur euh, d'esprit ak euh, mindset bi nga xamante mhm. war nañ ci mën a dugal seen loxo mhm. donc les associations sportives par exemple les associations culturelles man je pense que ñëpp bu ñu leen ci impliqué mhm. à une grande réunion le maire initié ko wax na nii lañ bëgg ñu liggéeyee ku nekk pàcc pàccoo gox yi man je pense que noonu lay gën a mais bu ñu ci defee beaucoup plus de politique rek du fiasco lay mujjee quoi euh, dama jàpp di bu si njiitu réew Euh, woote li nga xam ne moom moo jëm ci set setal maanaam bërëb yi nga xam ni euh, euh, dañ cay nemmeeku ay yeneen xeet mbalit yoon yi ni mel ñu tamit ñu gis mouvement réaction comme ni ngeen koy defee ca parcelle rek yéen it ngeen def li ni mel waaw absolument parce que nous personnellement le mouvement réaction on est un mouvement citoyen mhm. wax des actions citoyennes donc euh, action de développement mhm. je pense que depuis 2012 bi ñu commencé mhm. on a fait des campagnes de set setal c'est-à-dire que on a très compris très tôt que dëkk bi il faut xaaru leen euh, bataaxalu réew mi pour door a def set setal yi non non non on l'a depuis depuis longtemps et euh, donc je pense que bu nekkee dafa am envergure a am portée rek mais fekk na a beaucoup mouvement même bu dul ñun rek nga xamante a moom le gouvernement def mm-hmm. mais en tout cas en tant que citoyen notre responsabilité aujourd'hui mm-hmm. moo ñu inciter mm-hmm. ñi nga xamante ne nañu topp nañu ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey boobu mooy setal suñu gox fi ñu dëkk je pense que bu ko defee noonu yeneen mouvement yeneen association yi def ko seen gox Sénégal dina set c'est ça qui plus essentiel l'essentiel. tey ban regard nga am tey ci euh, développement wu Parcelles Assainies parce que parcelle dañ naan bëri na nit waaye bëri ay jafe-jafe yu nekk foofu yow mi nga xam ne da ngay yëngu ci wàllum euh, euh, ay activité citoyenne tey ban regar nga am ci wàllum développement tey ci diwaanu Parcelles Assainies. bon bonne question je pense que xam nga Parcelles Assainies dafa nekk une commune bi nga xamante ne ñëpp dañ ko teg bët. Mhm. pourquoi Parcelles Assainies dafa am population bi nga xamante dafa important. Mhm. si si si je veux je veux dire une population politique. Mhm. parce que boo xoolee si département de Dakar Parcelles moom mooy population bi nga xamante ne moo ëpp électeur si si si commune bi yëpp. Mhm. donc euh, d'où l'importance bi nga xam ne les hommes politiques dañ koy. dañ koy bàyyi xel. Euh, malheureusement Parcelles Assainies est laissée en rade. Ah bien sûr. Euh, stade bi presque deux mille douze autant pour moi sunu stade municipal bi. amuñu si accès. Mm. Euh, boo ah, xoolee pour man pare na sax ba gars yi ñu ngi ciy entraîné ci suuf si léegi. <laughs> non non non stade bi parewul parce que yaay a eu beaucoup de de yi nga xamante ne bu ñu si duggee peut-être dañ ko détaillé dina dina gudd en tout cas. Mhm. les populations des Parcelles Assainies euh, le mouvement. ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo. maaleykum. waaw bi ñu ngi lay nuyu di la ziar tur bi ak foo ñuy woowee. allo. salaamaaleykum ça va Mbemba. Hmm, ça va bien bi ak foo ñuy woowee. allo ñu ngi lay dégg bu baax. Mbemba maa ngi lay siyaar bu xam naa ne de de may déggee moom moo leeru. waaw bisimilah bisimilah waaw. dëkk Parcelles Assainies. donc di rafetlu loolu invitation boobu nga def ci Go Faye. donc ñu ngi Parcelles la vraiment. mbégte lañ ci am quoi. ndax euh, nekk na euh, koo xamante ni leader la. Mhm. seen leader ah. Mhm. daf ko di tey seen leader. Mhm. te Parcelles Assainies boo xoolee ressources yi fi te gis naa ne bu ñu amee benn leader local boo xamante ni dina mën a exploiter bi nga xamante ni moo nekk ci Parcelles Assainies. gis naa ne Parcelles Assainies dina pacifier. te ñun loolu dañ ko gis moom. ñun jeunes yi. ñu dëkk Parcelles Assainies. nekk na ko xam ne euh, pas mal de domaine mhm. euh, ci biir Parcelles Assainies mu ngi ko ciy def moo xam santé moo xam sport mhm. moo xam social lépp loo xamante ni daal ñuy mhm. laal société bi euh, ci toutes les couches vraiment doo fay ci dugal loo xam de vraiment tamit dafa nekk koo xamante dafa am vision donc gis nañu daal vraiment Parcelles Assainies incha allah deux mille vingt et un mhm. ñun li ñu ñaan mhm. waa Parcelles mhm. jàpp ni loolu mën na faj mën na faj affaire yi allo merci beaucoup jàpp ni mu affaire yi mën na loolu mën na góor fay ñu teg ci mairie bi mën na régler situation bi Gofay non moom la ñu gis ah moom la ñu gis comme alternative parce que euh, ki fi nekk muy muy le maire Moussa Sy vraiment. Mhm. wane ne li ay limitam quoi. Mhm. vraiment euh, depuis dix mu fi. Mhm. te boo xoolee li ñu jot a tëj ci Parcelles Assainies moo xam hôpitaux yi moo xam moo xam euh, rajo municipal bi ak centre de santé ak centre culturel bi ñi nga xamante ni. amoon na fi avant moom muy ñëw yooyu yëpp dafa mujj tëj. donc moom apparemment li mu formation mu ëpp sax moom li nga xamante def na ko. Mhm. donc euh, donc ñoo ba léegi man gisuma dara lu ñu inauguré mhm. te vraiment euh, mhm. loolu yëpp li ko waral mooy manque de vision. te kooku noonu nga xamante ni moom nga gis moom vision. leader ba mu ba mu ay deux mille seize. gis nañ ko mu di ay euh, ay lal hôpital yoo xamante ni di de naa moo waroon dem dem bitim réew wut ay partenaires. Mhm. yoo xamante ni indi ko pour waa Parcelles Assainies. suñu mhm. centre de santé bi mais defu ko. Mhm. donc su ko ko quelque euh, ku mel ni Pape Kory Faye mhm. jël ay moyens boppam dañu wut mhm. ay partenaires ñoo def ko ci mhm. ci hôpital bi vraiment kon xam la waxuma la ay lal hôpital mais leneen la ñuy wax ay rajo ay ak ay scanner lañ ci waxat donc vraiment pas mal demee naa boo laalee sport ak éducation ak moo mën sax lañ bëgg moom ñu détaillé ko loolu loolu la ñu war a détaillé insha en tout cas euh, ñu koy gërëm di ko sant mbokk moomu alors yii euh, ay moment la yoo xam ne c'est des moments forts quand tey boo déggee askan wi di yëkkati baat yi mel nii euh, lan lay def tey da lay gën a tax li nga doon def benn nga yokkaat ko ci Parcelles Assainies bon comme li ñuy wax rek quoi ñun on n'est pas des gens yi nga xamante ne nous de la politique. Mmh. donc jàng bi mu jotee dañu dem école jàngi. Mm-hmm. on a euh, eu la chance ñoom ay parents yoo xamante ne def nañ su ñu éducation bi nga xamante ne euh, du ñu topp politique wala def politique pour nax kii que ce soit. Mm-hmm. on tient pas on tient pas de discours démagogique. Mmh. ñun bu ñuy dugg ci politique c'est un engagement citoyen mhm. c'est un engagement patriotique ñu gis ne des mhm. gens comme moi qui avons eu la chance de fréquenter l'université Cheikh Anta Diop mhm. bu ñuy def première année bu ñuy def suñu master l'État du Sénégal a contribué euh, ci suñu éducation bien sûr donc par redevabilité ñun dañu war a delloo ci njukkal l'État en quoi en étant des acteurs pas des spectateurs maintenant pour être acteur mhm. il faut li nga xamante ne moom nga mën ci compétence mhm. nga koy jaay les privés mhm. parce que man ci privé laay laay laa doon liggéeyee nga jël si nga def ko au service de ton pays si noonu la ñu waxtaanee gis ne kat y a beaucoup de jeune comme moi yi nga xamante ne ils ont bénéficié des largesses de, du Sénégal ñun ñu boolewu mhm. nekk ay expert ku ci nekk sa domaine mhm. ñu ne on veut que les ressources humaines de qualité yi nga xamante bu ñu limité wu rek si mhm. wuti alal si dans le privé mais nañu dem au service de notre pays en commençant par notre commune euh, boo xoolee mouvement réaction ñu ko composé y des experts comptables y des ingénieurs y quatre cinq ingénieurs yi nga xamante ne euh, ñu ngi si biir donc euh, y a des banquiers y a okay. des financiers de suite juste pour wax la ne mhm. c'est une ressource humaine de qualité mhm. moom la ñu bëgg mu nekk ci euh, conseil municipal bi mhm. de ce fait on la possibilité de développer ñu xool mbokk moom salaamaaleykum allo waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar tour bi ak fan nga ñuy woowee allo allo waaw ñu ngi lay dégg bu baax waaw sëñ bi na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. man maa ngi tudd Lamine Gueye ñu gën maa xam ci Papa Lamine dëkk Parcelles Assainies. Mhm. Papa Lamine nuyu nañ euh, di rafetlu bu baax euh, invitation bi ngeen def euh, ci Go Faye. Mhm. di ko nuyu bu baax a baax mais aussi di la xamal ni invité nga une valeur sûre. Mhm. la politique parcelloise. tantôt maa ngi dëgg débat bi c'est très passionnant. am na solo lool mais dama la bëgg xamal ni ñun. au Sénégal, on n'a plus besoin d'hommes politiques, c'est-à-dire des personnes qui font de la politique leur métier. Mhm. ñu ngi koy wax léegi léegi la politique c'est pas un métier pour lui. Mhm. allô. maa lay dégg bu baax. donc moom tey bu investir dans la politique c'est parce que il a vu que y a des manquements y a des failles yoo xam ne tey sa responsabilité mhm. première ne lui permet de fermer les yeux face à cela. donc ñun waa Parcelles jox nañ ko bopp ñun mhm. jeunesse Parcelles jox nañ ko bopp mhm. ñun waa Parcelles yëpp gëm nañ ñu tey c'est l'alternative sûre mhm. parce que mi ngi def action yoo xamante ni fii il n'est pas maire il n'est pas député mais man je pense que il est député dans ses actes il est maire dans ses parce que mi ngi def yoo xam ni député yi nekk Parcelles maire yi nekk Parcelles ministre yi nekk Parcelles defuñu ko donc tey ñun tey bu ñu doon mesurer tey les baromètres tey mën nañ jàpp ne moom tey bu mhm. ëllëgee kat suñ ñu jëmee tey dina daal suñu xel mhm. donc dañ koy encourager ñun personnellement la jeunesse merci mhm. di ko remercier di ko wax du courage di ko wax aussi ñu ci ginnaawam qu'il pleuve ou qu'il parce que suñu jëm su baax lañ bëgg a dem te gis nañ ni buñ àndee ak moom dinañu ko yóbbu sa vision est claire ses actions sont alors Mhm, dañuy dañuy dañuy wéyal rek parce que euh, vingt millions nga jël ko def ko ci euh, hôpital Maam Abdou <laughs> parce que yooyu moom xam naa ni ñu bari ëmpul ñu bari ca Parcelles Assainies vingt million nga def ko ci maanaam nga ñëw changer xar kanamu li nga xam ne moom mooy jëm di hôpital Maam Abdou bañ la waxee doléance bi tey nga nekkoo maire waaye jël vingt millions def ko ci li nga xam ni moom moo di ci askan wi goo fay koppar googu takku na de yow man ne ni yow xaaroo ñu defar sa gox waaye kenn du la ci woo xam nga en fait euh, moom mooy li nga wax rek ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Mhm. le président de la république son excellence Macky Sall gënuñu nekk sénégalais. Mhm. te yàlla moom la jox mu jiite Sénégal. Mhm. mais gënu ñu nekk patriote aussi. je tiens à préciser préciser ça. kon ñun war ñu xaar ba nekk si gouvernement wala ñu nekk ci APR ou bien mhm. ainsi de suite mhm. pour pour des actions mhm. parce que bu ñu def action d'abord dañ ciy jaamu yàlla jaamu yàlla weesuwul nga dugg ci hôpital bi gis ne les les malades tey ñu ngi ci situation boo xamante ne jafe-jafe dañ la ko yeggee damay man parce que laa dëkk damay am ay rak yoo xam dañuy feebar ainsi de suite ay samay booy di football ma dem ci hôpital bi xool mais bu ma duggee damay gis ne peut-être wërsëg bi le privé ma am sama prise en ne am na samay maire ko ñoo xam dañuy feebar mhm. bu ñu demee si lal yi tëdd si mhm. woo ma téléphone ne ma ah ñu ngi lay ñaanal parce que lal yi nga andi woon si hôpital bi si mhm. lañ tëdd loolu rek satisfaction satisfaction personnelle ak satisfaction morale boobu lañ si recherché je me dis que c' est une manière d' parce que du man rek maa am capacité boobu am na ñoo xamante ne ñoom ëpp capacité ñu ngi Parcelles Assainies bu ku nekk defee sa pàcc pàcc je pense que a xaar lépp si état dina dox léegi nag n'empêche on va mettre une pression positive à mhm. l'autorité locale c'est-à-dire le maire mhm. à l'état mhm. pour ñu bañ ñu fàtte ñu jël émission mbokk moom salaamaaleykum allo maaleykum salaam sëñ bi tur bi ak fan nga ñuy woowee waaw Baye Seyni Diop maa ngi dëkk Parcelles Assainies Baye Seyni nuyu nañ la voilà dama woote woon aussi tey pour euh, waaw euh, wax leen aussi tey invité ngeen koo xam ni voilà ku ñëpp xam parcelle ku ñëpp respecté aussi biir Parcelles Assainies yi mhm. ndax ay action am et mu nekk nit boo xam ne jëlul jëlul nekk nekk maire parcelle jëlu ko rek def ko fixation si moom mhm. parce que euh, xaarul pour euh, euh, askan bi fal ko pour mu mhm. pour mu defal leen li mu leen war a defal xaarul aussi askan bi fal ko pour mu pour mu taxaw ci seen ay bëgg-bëgg waaw mu nekk quelqu'un boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu pour ñu wax si moom dina xaw a dina xaw a jafe mais aussi dina dina yomb voilà parce que nekk nit koo xam ne bu la rombee da xam ne carrément kii ku am éducation bu baax la. Mm-hmm. voilà muy nit koo xam ne ah, ko wax. Mm-hmm. voilà muy nit koo xam ne aussi tam ki nga xam dafa jàpp ni ay adversaire politique sax sax. Mm-hmm. bëggul di wax ci ñoom loo xam ne maîtriser ko. donc kooku daal bu ngeen ko invité da damay damay damay dama leen di xamal ni rek. invité ngeen koo xam ne tey képp kuy éduquer sa sa sa doom. Euh, boo xoolee ci moom rek. Euh, di nga gis ci ay valeur rek ngay gis ci moom donc daal. Mhm. moom dañ koy ñaanal rek quoi dañ koy ñaanal parce que bu ñu toogee tey di leen wax lii la lii ak lii ak lële la def parcelle lu ñu fi jógee. Mhm. voilà donc duñu def rek du bàyyi leen. ok euh, seen émission. bien ko wax tam euh, mhm. le maire jërëjëf. merci beaucoup Baye Sine. voilà déjà rek euh, nekkagoo monsieur le maire ñu naan la monsieur le maire vingt millions yooyu lii il faut ñu ñëw ci parce que parcelle ñi fa yeewoo bari nañ quand li nga xam ne moom moo jëm ci paj mi dafa am solo trop ci ci ci ci Parcelles Assainies yi. la santé au Parcelles Assainies est malade mm, damay utiliser benn expression bi nga xamante ne c'est. <laughs> ñu jël ñu jël mbokk moom. Mhm. ok. salaamaaleykum. ah soxna si. bisimilah ah, ñu ngi lay dalal allo. Mhm. Mhm. allo ñu ngi lay dégg bu baax. waaw bien sûr yaa ngi ci biir. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. oui allo. salaamaaleykum. allo Mbemba ça va. ça va bien alhamdulilah. Guèye l'original. <laughs> Guèye Guèye l'original waaw. ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw mais na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. Euh, naka goo fay duggoon rek pour euh, vraiment encourager ko. Mhm. merci beaucoup. et puis féliciter ko aussi ci positionnement bi mu jël ci Parcelles Assainies. Mhm. donc euh, jamono yëpp ñu ngi partager benn collectif. Mhm. et loolu permoon permettre ñu gën a xamante ñun ñii quoi parce que nous avons la même vision et la même perception de la politique mmh. je lui dis je l'encourage parce que ñun ñoo mën a soppi xar kanamu politique ci mm-hmm. parcelle mais Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. merci beaucoup donc yoon loolu ko invité foofu ma dugg témoigner ko vraiment di ko encourager di wax ne parcelle moom ñu dem rek incha allahu rabbi dinañ soppi xar kanamam incha allah sollicité aussi si social bi lépp lu muy def daal. waaw. merci beaucoup mon ami Guèye. allo merci merci beaucoup monsieur Guèye. waaw mais nuyul ma Go quoi Go <laughs> xam nga man man dama jiite génération originale. Mhm. muy GO moom muy Go Faye donc les deux Go la daal ñooy jaaba jàll ci partenaire. <laughs> mu ngi lay dégg bu baax les deux Go. merci beaucoup jërëjëf Go félicitations. merci merci beaucoup mon frère. alors à très bientôt. xam nga téléphone bi nag buñ ko xawul wàññi. Go Faye lu mu bëgg a développé ci Parcelles Assainies daa mel ni du sotti wala yaa ngi woon ci parce santé bi faaw ñu desandi ci. Mm. nga ne euh, santé pajum santé fële parcelle moom. dafa xaw a je dis que la santé aux Parcelles Assainies est malade. ah bon euh, mm-hmm. mm-hmm. a à euh, trois cent mille habitants. Mm. commune bi ëpp électorat si Parcelles Assainies. Mm-hmm. commune bi nga xamante ne ministre de l' et des finances fi la dëkkoon. commune bi nga xamante ah, fa dëkk fa. fii la dëkk wala dëkk fa fii la dëkk je veux dire fii la dëkk mm-hmm. Mm-hmm. commune bi nga xamante ne des ministres d'état fa lañ dëkk mm-hmm. commune bi hôpital bi benn centre de santé lañ am tudd maam Abdou amul rajo amul scanner bu ñu feebaree dañuy dem nabil sukkeer di def ay rajo ainsi de suite je pense que c'est c'est c'est anormal c'est anormal de l'occasion pour lancer un message de la santé Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr bu fekkee yëg na ko xaw ma yëgu ko gis nga parcelles waay yi. Mhm. bu ñu feebaree. Mhm. du ñu faju mhm. parce que consultation rek lañ fa mën a def parce que plateau médical bi c'est pas euh, élevé. loolu nag am na yoo xamante ne tey mairie même bu ko bëggee du ko mën. j'avoue ah. parce que tamit ci suñu budget. Euh, c'est vrai que mën nañ ci sóor yooyu mhm. mais dafa loo xamante ne c'est trop lourd pour ñun mhm. Mhm. donc c'est-à-dire que l'état moo war a jël en charge foofu laay waxee ne Parcelles Assainies ñi ngi jooy gisuñu seen bopp ci dëkk bi gisuñu seen bopp ci réew mi maanaam dañ leen bàyyi noonu rek ils sont laissés en rade Parcelles waaye ci gouvernement Macky bi ñun gisuñu suñu bopp loolu c'est la triste réalité xam nga lu tax man la gisuñu suñu bopp tey bu ma doxantoo Géejawaay daaw c'est le frère du président de la république moo fa nekk maire mm-hmm. Guédiawaay moo gën a rafet almadi fi mu toll nii mm-hmm. infrastructure routière mm-hmm. infrastructure structurante jumaa yoo xamante ne plus de milliards lañ koy tabaxee alors que ñun Parcelles Assainies suñu hôpital bi amul rajo amul scanner te loolu état moo ko def c'est la mairie de Guédiawaay c'est la de Guédiawaay en collaboration avec l'état du Sénégal parce que am na projet yoo xamante ne état du Sénégal c' est des de l' ñu mhm. orienté ko foofu. Mhm. donc bu nekkee moom Moussa Sy. Mhm. le courage de dire. directement au président de la République ou bien les aux membres du gouvernement. que nañ defar Parcelles Assainies ñun ñi nga xamante ne ñooy jeunes Parcelles Assainies. on a courage de le dire parce que xaaruñ si ñoom dara. ñun bu ñuy politique. politique pour am poste boo xamante dañu koy neexalee. politique ñu nekk almadi si lañ nekkee mm-hmm. donc ñu jël ci kii bi peut-être salaamaaleykum asalaamaaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi rëcc na yaa ngi woon fu am solo maanaam ñu ñëw jàppale ñi nga xam ne ñoo di goxu euh, Parcelles seen yi jot na absolument mm-hmm. absolument xam nga en fait bu ñu ñëwaatee mm-hmm. euh, la question fondamentale bi nga xam ne mooy état. Mhm. mooy comment faire coïncider la demande et l'offre. Okay. la demande aux partenaires associés mooy la santé. Mhm. l'offre ça provient du gouvernement. Mhm. à travers le ministère de la santé. dëgg la donc matériel médical bi. plateau médical bi Parcelles Assainies dañu bëgg ñu def ko hôpital bi nga xamante ne niveau yi gën a mag la parce que suñu population Parcelles yi mérité na loolu mbokk salaamaaleykum allo asalaamaaleykum ah, ah maaleykum salaam sëñ bi tur bi ak foo ñuy woowee waa sëñ bi na def man maa ngi tudd Edou maa ngi dëkk Kaolack. Mhm. voilà ñëw fii euh, Dakar. Mhm. tombek euh, ngeen invité euh, le président Bo Faye. Mhm. président MRP président réaction. voilà ma dégg muy wax mu nekk benn jeune bu dynamique. ñu koy suivre lu baax a baax fii ci Parcelles Assainies. voilà dégg nañ li muy wax ci wàllu santé bi ci wàllu hôpital Mabdou. dégg nañ tamit muy wax ci yenn investissement yi nga xam dañ koy def parcelle te du jàll. Mhm. voilà en fait ñu koy remercier bu bari bari. Mhm. di ko encourager di wax ne ñu ngi koy suivre bu baax. Mhm. di wax ne. képp koo xam ne yaa ngi déggu émission bi. Euh, goo fay boobu noonu. na ko waa parcelle jàppale bu baax parce que jeune la boo xam ne am na vision. am na talent. te courageux na. bon ñun nag nuñ ko bu baax. Mhm. parce que dañ koy gis noonu rek. Mhm. ci euh, campagne yi passé sax lañ ko gën a suivre parce que ñun tam ay jeunes lañ comme moom di yëngatu. Mhm. mais gis nañ ne mu ngi defendre parcelle ci domaine yu bëree bëri. donc ñu koy jaajëfal di ko encourager mais di wax waa Parcelles Assainies encore une fois. parcelle dañu soxla ñu mel ni jeunes yu mel noonu. comme Go Faye Cory. dañu soxla ay jeunes yoo xam ne dañu am vision pétrie de talent ba pare di investir pour le développement des Parcelles Assainies. xam nga tey dëkk bu mel ni Parcelles Assainies hmm. bi nga xam ne bi mu nekkee commune ba léegi yàgg na hmm. regorgé ah nationalité yu bari regorgé ay euh, population bu bari hmm. mais ñu gis cadre parcelle lu mu mel ñu gis maire parcelle ak ni ko population yi bëggoon ñu dem ba ci biir mu daal di dugg ci régime Macky Sall mu nekk loo xam ne métti na waa parcelle lu bëree bari espoir u parcelle nag mhm. boo fay boobu moo koy incarné loolu moo tax sax ñun ñu dugg mhm. pour xamal ko ne ko moom mhm. ñun ñu ngi koy bàyyee xel bu baax te espoir u parcelle moom moo koy incarné vision nag ñu ngi koy xool bu baax te parcelle tey ji li mu soxla dëgg-dëgg pour mën a dem goo fay mu ngi koy incarné ñu wax waa parcelle ak ko wër yëpp nañ ko jàppale parce que dafa soxla force derrière lui dafa soxla force derrière lui donc loolu la ñu doon wax go. Euh, man la Ibou xam naa ñu ma bu baax. mais man maa doon woote pour dëggal. sa doole biir parcelle dëggal. sa vision biir parcelle mais également dëggal say perspectives biir parcelle. merci beaucoup maa leen di remercier bu baax a baax. merci beaucoup merci beaucoup. alors ñii yëpp ci fin bi dañ la may euh, kàddu minute rek nga continuer nga wax si ñoom ñëpp. en tout cas nit la koo xam ne yaakaar naa ni boo juumul xam nga ko wala xamoo ko mais li mu wax ni quand am na soxla. waaw li mu wax euh, dafa baax rek mais dafa war a xam ne ñun. Mhm. Euh, loolu mooy suñu vision. quand on mhm. fait la politique on le fait parce que on est des patriotes. Mhm. gis nga moo tax euh, souvent les gens disent que on est courageux on n'est pas courageux c'est parce que dafa xam dañu xam fi ñu jëm. te gis nga booy def politique. bu nekkee tu veux être jeune ba pare nga nga am li nga gëm nga am sa vision bi nga xamante ne jàpp nga ne moo baax. dama nga wuti métier. boo amee sa métier. Boba, tu seras, tu seras indépendant. Mm -hmm. Et si tu indépendant, tu pourras dérouler ta vision. Mhm. Parce que nag je te dis une chose la plupart des jeunes yi nga xamante ne ñoo topp euh, les partis politiques. Mhm. nekk fa di nekk ay suivi tàccukat. bu mhm. nit ñi ñëwee ñu daw di njëkkante di photo ak yooyu c'est parce que ils n'ont pas grand chose dans la tête. et puis dañuy yaakaar ñooñu ñuy topp. pour ñu. te eh, affaire bi du foofu. non non non man ku yaakaar ma ñëw topp sa ginnaaw di lambar lambar yi di topp la di photo ak yow yaa ngi nax sa bopp. man dama bëgg. Mhm. ku may àndal mu nekk suma alter ego. Mhm. ñuy échanger. Mhm. bu yàlla defee nga jiitu ma si kaw nag. implique moi dans ce qu'on fait. ñu waxtaan léegi nag jiite ñàkk jiite c'est pas important. ok li gën a am solo mooy comprendre des décisions fondamentales yi nga xamante ne. pour l'intérêt général. pour l'intérêt de la commune. pour l'intérêt du Sénégal. je que politique loolu la. gis nañu itam ginnaaw santé gi. ñi nga xam ni ñoom ñoo di femmes yi parce que ñoom parcelle dañ naan soo kiiwee rek ñu ne Gofay mi ngi fi dinañu financer dinañu jàppale. <laughs> Euh, Gofay ak femmes yi. Euh, ñu jël kooku. salaamaaleykum. maaleykum waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Mhm. bisimilah. allo yaa ngi ci biir yaa ngi ci émission bi. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. waaw ñu ngi lay asalaamaaleykum ñu ngi ziar bu wér. Mhm. ñu ngi leen di ziar ñu ngi lay dégg. ñu lay dégg bu baax. waaw man la Lamine Gueye. Mm-hmm. Lamine ça va. di nuyu ki ngeen invité moom mi Papa Kory Faye. Mm-hmm. ñu koy wax ci Go Faye. Mm-hmm. waaw c'est la première fois ñu woote ci rajo sax mais tey loolu Ndiaye naan lu yëngul la ko yëngal mu ko doole. ki ngeen invité dafa nekk nit boo xamante ni nit boo xamante ni daal yaakaar naa Parcelles Assainies tey ñu xamoon kat mooy njëriñ loolu mooy njëriñu Parcelles Assainies tey dañuy dañuy manqué jox ko Parcelles Assainies ndax nit la boo xamante ni. Mhm. ndax nit la boo xamante ni. Mhm. léppam léppam da ko xeex pour Parcelles Assainies. Mhm. léppam léppam da ko xeex pour Parcelles pour Parcelles Assainies léppam da ko da ko sacrifié pour Parcelles Assainies. yaa ngi dégg. maa lay dégg bu baax. waaw kon damaa yaakaar damaa damaa yaakaar ni kon tey jii nii Parcelles Assainies yaakaar naa su xamoon kan mooy Go kon tey duñ sonn sax di kii mais li may wax chaque jour rek. mooy suñ mooy nekk na maire te falul maire xam nga maire tey ci ci ci la ci tur kase la mm-hmm. mais li muy li def Parcelles Assainies yi yaakaar naa ne taxawaayam mm-hmm. taxawaay maire dafa taxawee taxawaay député dafa taxawee mm-hmm. ndax fan lañ député Parcelles Assainies yi kenn xamu leen fan maire li taxawee Parcelles Assainies yi di ko sonn ci santé bi di ko sonn ci jeunesse bi di ko sonn ci nawetaan bi di ko def social néew na koo xamante ni mu leer na tey yoroo propre moyen ngay lijjanti di ko di ko dimbali ne ci xel mu sell. boobu mhm. dañ ko gis moom moo tax kay suñu invité dañuy sawar woote ok. merci beaucoup. merci kon duñ def ñu koy ñaanal ndax moom mi ngi def li ko war te nekkul maire mi ngi def li ko war nekkul ministre mhm. mi ngi def li ko war nekkul député mi ngi sonn guddeeg bëccëg ngir Parcelles Assainies ci mouvement yëpp beeg mhm. nawetaan beeg femmes yeeg mhm. lépp li nga xamante ni saa njëriñu Parcelles Assainies mi ngi si mi ngi si guddi mi mhm. surtout nag social boo xamante ni da koy def si sutura nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm jox ko Parcelles Assainies loolu lañ ko ñaanal merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi woon ci euh, femmes ñi nga xam ne ñoo di famille euh, Parcelles yi dañuy bëgg di yëngu waaye des fois du ñuy am ñi nga xam ne nag ñoom ñoo li ni jàppale ndax Go Faye mi ngi xalaat ci li nga xam ne moo di euh, financer famille ngir seen i activité mi nga xam euh, yow su ma juumul banquier nga ci wàllum entrepreneuriat ndax yaa ngi ci incité ñi nga xam ne ñoo di soxna yi ca Parcelles Assainies <laughs> bah écoutez là je serai à l'aise parce que c'est am ñu waxee si euh, mbirum financement donc euh, je suis à l'aise parce que man j'ai mhm. continuer voilà après. je suis mhm. euh, je euh, mhm. banquier de formation et non économiste de formation et banquier de métier d' accord. Mm-hmm. donc microfinance dem naa si plus de dix ans. Mm-hmm. c' est à dire euh, ay yi nga xamante ne ay projets d' envergure lañ. Mm-hmm. lancé nañ ay ay institutions de microfinance ñu dem. ba tey euh, taxaw si Sénégal. participer nañ si yenn projet yoo xamante ne euh, je pense que pour financement la. donc ñun dans ce cadre là comme suñu domaine la. on a eu la chance. de financer femmes c'est pas seulement des femmes ah des mhm. jeunes ci mhm. projet yi nga xamante ne moom lañu andi parce que gis nañ ne mhm. entrepreneuriat moom moo mën a développer euh, réew parce que comme li ngi insister ñu jël ko rek ah, asalaamaaleykum asalaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam ah sëñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax deux minutes rek lan nga ñu mën a wax tey ci Go Faye bon bëggoon intervenir rek par rapport ak kooku euh, ngeen invité foofu. bisimilah deux minutes rek. di euh, mhm. doo fay donc di euh, quelqu'un koo xamante ni Parcelles Assainies yi. Mhm. dañoo am yaakaar ku bu mag a mag. Mhm. te bu ngeen amee chance te bii nii rajo bu mel ni réew mi invité ku mel noonu. parce que lépp bari nga bëgg a jot ci moom mais tey jii nii amuñ opportunité. am occasion bu ñu mel. déglu ko. ñii di dégg rek lañ ci am. Mhm. di ko dégg riiruñ. Mm. ndax riiram fi nekk ni moom booy na nopp waa Parcelles Assainies yi. Mhm. kon tey occasion bi ñun may tey jii mhm. ñu ci exprimer ñun ñu waa Parcelles ñu ñoo leen di delloo njukkal yéen waa Rewmi FM. ndax invité ngeen koo xamante ne tey jii nii. parce a ngi koy bàyyi xel. yaakaar yi yëpp. ngi riir jëm ci moom. Parcelles Assainies ñu ngi koy ñaanal. man amaana sax. amantewuma ak moom. waaye dégg laa am ci moom te am yéene. bi ñu def biir ndax gox bu ne. Mhm. ñu dëkk ca gox bu ñoo ko mën a doxal. Mhm. te bu dëkkee Parcelles Assainies nit ñi fi dëkk. Mhm. di dégg tey jii un jeune. amul benn responsabilité politique yi. di def yenn actes yu rëy yi nii. kooku mënuñ lu dul day ñi dem ànd ak moom ngir ñu demoon Parcelles Assainies kanam dafa indi ay lal hôpitaux yoo xamante ni man sama jarbaat dafa feebar ma dem hôpital Maam Abdou gis fa ay lal yoo xamante ay lits de dernière génération. yoo moo nekk ci clinique yu mag a du ñu laajtee bi ma laajtee ñu ne mu benn doomu Parcelles Assainies ku ñuy wax Go Faye moo ko tuddee. Mhm. daaw période bii nii. Mhm. ay jeunes étudiants. Mhm. am bac. amul yéene dem jàngi. waaye amaana seen loxo yi waajur jóg seen ginnaaw. ñu toog suñu ko dégg. lu toll dix huit personnes yoo xamante ni man ñu ma xam. moo leen wutal bourse d'études yoo xamante ni tey jii ñooñu dem dem nañ jàngi. kon donc ku ñu mel. te wax dëgg yàlla mënoon na ko cay bañ a bañ bañ a fekk. mënoon na tey jii damay xaar ba falu. waaye deful ko. Mhm. lu mu am. Mhm. ci salaire bi mu am ñu ngi koy bokk ak waa Parcelles Assainies. ok ok kon waa Parcelles Assainies ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di ñaan liggéey bi mu sunu. Mhm. ñu yegg na ko ak jàmm. di leen wax ni am naa ne téléphone bi bu ngeen ko coupé wul. moom émission bi du yegg day metti waaw waaw waaw uh-huh. uh-huh. mu ngi wax lu am solo solo solo loo xamante ni tey jii nii. Uh-huh. waa Parcelles yi war nañ koo dégg ngir lu mu bëgg ci Parcelles Assainies waa Parcelles ànd ko moom ba tax ñu koy ñu ngi lay jërëjëf am na ñuy ñuy dugg sax jërëjëf jërëjëf am na ñuy jéem a dugg sax ñu ngi may xamal ni serveur bi instant yi dafa metti dafay dugg mais ñeneen jafe na trop mais dañuy may góofaay rek mu ko parce que femmes yi ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi entrepreneuriat sa domaine la yaa ngi ci yëngatu bu baax a baax tey fan nga toll ci ñi nga xam ne ñoo di soxna yi ci diwaanu Parcelles Assainies yi xam nga à un moment donc j'étais en contact permanent avec euh, les femmes. mu mm-hmm. doon ñëw koñ bu nekk ma xool femmes yi. Mm-hmm. Euh, constitué ñu nga xamante ne ay yu informel lañ. Mm-hmm. ma fexe ba formaliser leen. li ma ci ge yu formel mën na cent. ci parcelle yi nga xamante ne man maa leen wutal këyitu association. ok parce que nit aussi boo koy jàngal liggéey da koy jàngal mu nekk dans mu ngi jóge si informel nekk dans le formel. buñ ko defoon. Euh, ñu wutal leen des financement mm-hmm. li nga xamante ne dina leen permettre. Mm-hmm. ñu ñu liggéey. mais mm-hmm. avant ñu leen jox financement bi. dama leen doon fayal ay formation formation yi nga xamante ne ay savonnerie la. de suite ñi ay transformation entre guillemets. de passage ma nuyu benn maire boo xamante ne moom moo de formation yi maire wàllu yàlla Dieng. bu dëkk unité unité 19. moom moo doon formé femme yi ba pare. bu ba am métier nag. ñu construire leen en en association en GIE. wutal leen financement ñu liggéey. Mhm. tey am na si ñoo xamante ne. Mhm. Euh, grâce à ces financements. Mhm. tey mënal nañ seen bopp. ok ñun loolu rek lañ ci am sant yàlla. xaaroo kenn xaar ñu leen si lenn ñooñu sax amatuma suñ si bari seen contact. parce que bu nekkoon am seen contact la wala politique kese dinañ yor seen i jëm leen topp xamante ñoom di leen chantage. man je suis je suis pas dans ce genre de choses là satisfaction personnelle ma si am. mooy satisfaction morale. mooy euh, d' accord mënal boppam mënal boppam. Mhm. bu ñu ñëwee si jeunes yi aussi. Mhm. je reçois beaucoup de jeunes nga xamante ne ay projet la ñuy am. Mhm. bu nekkee c' est des yi nga xamante ne c' pas. Euh, faramina faramina pour mhm. ne pas dire beaucoup. Mhm. ñun on lève de notre poste on prend de notre poste autant pour moi. ñu jox mhm. leen ñu accompagner leen. avec plaisir. bu fekkee c'est c'est des yi nga xamante ne dafa xaw a sakkan. ñu orienter leen. c'est des structures yi nga xamante ne euh, nañ leen accompagner. nekk seen genre garant parce que on est des personnes crédibles et euh, am nañu relationnel boobu noonu. juste pour wax la ne. le rôle de l'État c'est pas de créer de l'emploi. peut-être État mën na accompagner ñu créer ñoom ñu créer emploi mhm. te le secteur privé wu nag moom mooy les entreprises les entreprises les associations yi ñuy créer mhm. jox leen accompagnement parce que mhm. aussi vous n'êtes pas sans savoir que l'accès au crédit est très très difficile donc l'État a compris ça gars la naan taux sax dafay xaw a moo tax dañu bëgg dem di uti xaalis <laughs> waaw absolument loolu sax beneen domaine la boo xamante bu ñu si duggee peut-être nañ si mën a kii mais juste pour wax rek parce que c'est pas des hommes de banquier nga boo ko waxee mun na lu tax ah. nga ne fiasco la. absolument parce que ñoom ñoo gën ci télé bi ñu ne taux de recouvrement bi c'est très faible. ils sont mhm. en fait loolu day dafay bu ñu motul ci daanu la jëm parce que c'est pas des hommes de sérail. Mhm. des experts en microfinance lañ jël ñu jox leen loolu. des experts en microfinance ñi nga xamante ne mën nañ analyser un dossier de crédit. Mhm. Euh, xool mm -hmm. euh, le besoin du client. xool exactement qui il est ce que mën na ko ñu jox ko xaalis parce que nit ku mënul dara. Mhm. nga ñëw ku nekk def sa association dem ci banque bi ñu jox leen kenn du fay dara. Mhm. parce que xaalis politique la approche politique lañ leen approché. mais bu ñu leen ko. dañ leen bëgg a jox dimbali leen pour fii ak déwén ku ci nekk mënal sa bopp ñu la xaalis bi il faut que les gens soient sérieux dans ce pays là. tant que sérieux boobu noonu ak rigueur bi amul ñu wàññi politique bi jublu si liggéey bi. Mhm. Sénégal du développé. Mhm. léegi euh, parcelle rëy na naka si yan fànn lañ mën a jaar ngir suqali parcelle tey goo fay ak li nga wax yëpp comme ay projet te vision wu mouvement réaction ci parcelle lan la. xam nga mouvement réaction bi ñuy créer mouvement bi dañu dem si benn constat ñu gis ne gox bi am na ay ressources humaines. Mhm. mais ku si nekk tu es dans le privé di seetaan ñi nga xamante ne d'habitude seen poli seen liggéey àdduna yëpp politique la. <laughs> ñu ñuy jiite. Mhm. parce que d'habitude les intellectuels ñoom d'habitude du ñu politique. Mhm. ñi nga xamante ne am nañ ay compétence intellectuelles nag du moom moo mën. Mhm. diriger c'est différent. on peut ne pas être intellectuel et être en mesure de de diriger. management ak euh, ak diplôme bokkul. ñu gis ne am na ay ñoo xamante ne am na ay compétence mhm. ñi nga xamante ne tey. Mhm. si par hasard ils se retrouvaient dans le conseil municipal. dinañ mën a jël des décisions importantes des décisions d'envergure. Mhm. pour l'intérêt de la commune parce que nag vous n'êtes pas sans savoir que le rôle de l'autorité locale c'est pas de créer des des des des structures yu nga xamante ay kii parce que euh, euh, c'est juste de contrôler le bien-être des populations c'est-à-dire xool ndax poste de santé bi bi nga xamante ne tey euh, la mairie à travers Euh, l'État defar nañ ko est c'est bien entretenu. Mhm. ñu dem ci terrain bi. est-ce que mhm. terrain baax na ngi football. Mhm. ñu dem ci assainissement bi ainsi de suite. mais c'est pas le rôle de la mairie ñu dem di defar ay assainissement wala des projets d'envergure. ok maintenant. ak l'axe de la décentralisation les mairies. mën nañu def ay partenariats public privé c'est-à-dire di def ay projets yoo xamante ne d'envergure lañ. mais yooyu c'est des modèles yi nga xamante ne. yu bees a une projet par exemple le projet du stade. Mhm. aujourd'hui bu ñu nekkoon euh, euh, ñun la. Mhm. tu donnes ça à un privé. même bu nekkul état. ok c'est à peu près un milliard deux milliards mu defar stade bi après moom mu gérer gestion bi. Mhm. la mairie di ko fay loyer ba ba ba. ba ba keroog muy jeexal. mu jël c'est des concessions loolu la wax. mais en fait loolu nag dafa laaj des yi nga xamante ne ils maîtrisent le domaine. Mhm. nekk si biir conseil municipal bi. bañ a jël conseil municipal bi nga mhm. mhm. xamante ne loo wax di Parcelles Assainies bu ñu demee ba jël ay 60 millions di si tabax piscine. mais est sérieux ah bon bi nga xamante depuis 2014 mënuñu ko livrer. Hmm. loolu laay wax. Hmm? xaalisu askan bi. duggul ci askan wi daal. non dañ koy jéem a dugal ci askan mais xam nga bu fekkee ay cuune ñoom ñooy jël décision yi hmm. ils hmm. Hmm, parce que tabax piscine c'est pas une priorité c'est Parcelles Assainies ah. quoi qu'on feebar faju moo gën parce que balaa ngay sangu piscine il faut nga wér balaa ngay jàng école il faut nga wér la santé elle est prioritaire elle est fondamentale kon lépp lu ñuy investir ci Parcelles Assainies fi mu toll nii ñun suñu priorité na ko Macky Sall président Macky xam na ko ministre euh, euh, la santé tant que defaruñu santé topp fu ñu fu fu ñu amee occasion wax ko dinañ ko wax. le sport. <laughs> un hmm. levier important. aujourd'hui on parle du Sénégal partout dans le monde. à mhm. cause de Sadio Mané. bien sûr. yóbbu na turu Sénégal feneen. Mhm. boo demee Rwanda da ngay gis maillot équipe yu mag yi ñu si bind visite Rwanda. c'est-à-dire mhm. à travers sport vecteur de communication la. tey bu ñu defaroon sunu stade bi bu ñu am ay jeunes yoo xamante ne génn nañ fi signé ay professionnels fan nga dëkk Parcelles Assainies mhm. je profite de l'occasion pour saluer mon grand Moussa Ndiaye mhm. du dëgg mhm. tey ñooñu ñooy fierté yi mais ils sont pas capables de délivrer bii nag responsabilité ñaar la le maire a été incapable de livrer bi mu jëlee engagement bi parce que mënul moom ak gaa mi le ministre de de l'économie non non non ministre des sports Matar Ba Matar Ba aussi. Mhm. à plusieurs reprises ñëw na Parcelles Assainies avant élection yi ne dañuy li dañuy jox suñu stade. Mhm. ce qui est archi faux. Mhm. livré wuñu suñu stade. donc moom aussi la responsabilité. am na si lui incombe il est à cinquante pour cent. ok mais suñu xoolee li nga xam ni yëpp góo wax na ko mais est-ce que tamit euh, tey euh, def nga approche jege le maire lépp loo xam ne li nga xam ne moom moo di projet la ca biir Parcelles Assainies comme ça nga mën a diiso ak moom wala da ngaa fëgg mu bañ a ubbi. <laughs> non non non j'avoue que nag Moussa vraiment. Mhm. il est bon vis-à-vis de moi. il est mhm. quelqu'un de très sympa. Mhm. Euh, te bu ñu gisantee on se respecte mutuellement entre nous. projet yi quoi. man personnellement. Euh, on n'est pas des amis c'est-à-dire on se fréquente pas. mais il me vaut du respect. te respect boobu c'est mutuel aussi je le respecte. bien sûr mënu ma ko haïr c'est mhm. parce que xawuma ko sax ba di ko bañ mhm. rien de personnel mhm. c'est pas des voies personnelles quand je critique la gestion c'est différent critiquer la personne de Moussa et critiquer le maire de c'est très différent man quand je critique mes critiques c'est des critiques objectives yi nga xamante ci gestion la donc loolu je tenais à préciser ça donc euh, que à plusieurs reprises gis nañ nañ parce que même bi ñuy joxee lal yi si mu Assainies waaw qui qui de se rapprocher de ces jeunes là ñu xool nu naka la liggéey parce que ku si nit warul doyloo xelam mhm. du dëgg tey euh, bi président de la république soxla Parcelles Assainies il s'est il a essayé de se rapprocher de lui ainsi de suite mhm. donc yooyu yëpp c'est des choses yi nga xamante mën nañ ko réfléchir mhm. parce que ñun yi nga xamante ku leen woo daal ngeen wuyu si <laughs> ku ñuy woo nañu wuyu si waxtaan man président de la république daf ma ba léegi maa ngi si ma position. Mhm. c'est très différent mais malheureusement Sénégal. Mhm. tey wóor na ma ne bu ñu ma gisoon <laughs> Moussa Sy. Mhm. waaw ma dugg mairie bi ñu ne ok go dem na si Moussa Sy c'est très différent ñun on est des personnes yi nga xamante ne lépp ñuy def day nekk en accord avec nos principes. et parmi nos principes. l'intérêt général dañu bëgg képp ki nga xamante ne la ñuy collaborer nañu jiite intérêt réew mi que suñuy intérêt personnel après nag ce qu'on va après à gauche man su ma la déggee ngay wax da nga am projet Parcelles Assainies sa projet tey ci parcelle Assainies tey lan la parce que euh, naam bu fekkee am nga agenda caché waaye tey Go Faye li mu ak li mu fi jot a lim yëpp tey mooy tey dugg ci mairie bi de loolu la lan mooy projet bi tey bi nga war a jox askanu Parcelles Assainies. le projet que je veux euh, délivrer aux Parcellois. Mhm. mooy nekk def Parcelles Assainies la première commune du Sénégal. Okay. en termes d'infrastructure. Mm -hmm. en mhm. termes de sport en mm de santé. Mhm. je vais me priver quand même de dérouler. Mhm. di exactement c' ça mhm. mon programme. parce que comme élection yi ñëwagul xamuñ mhm. nga kañ la ñuy def élection gars yi dañu koy bind programme après da ngay am <laughs> du dëgg. mais juste pour wax la ne le jour où. les Parcellois nous font confiance. dénk ñu mairie bi. l' équipe Fagnon des Parcelles Assainies. le management dafay changer xam nga lu tax. depuis que USPA et USPA. Mhm. le maire moom mooy président bi. Mhm. c' groupe de quatre cinq personnes yu nekkoon si nawetaan ñoo koy gérer. Mhm. équipe bi kenn gis si boppam nan lay demee. puusul du puus du paas parce que ñoom quatre cinq personnes ñoo koy gérer ku nekk foog ne yaa ko moom munul nekk. gis nga équipe de football. dafa yëfu ñëpp. ñaari tali bi muy dem di départemental ba nekk tey ci première division c'est parce que gestion boobu nga xamante ne. ñëpp lañ ci boole woon. il faut mhm. impliquer tout le monde. Mhm. mais boo ko bëggee jël man maay président bi sama kii ainsi de suite. Mhm. bu nekkoon parcelle waaye gis nañ seen bopp. jaay 1000 2000 maillots. mais à 5000 francs 10 000 francs c' est c' est day am ressource. équipe de football. boo demee si dëkk yu mag yi. entreprise la. Mhm. day générer ay ay fonds. Mhm. mais ñun ni ñuy parce que dañuy foog ne ni ñuy gérer nawetaan. Mhm. noonu la ñuy gérer. Euh, te bokkul mais c' est très différent. juste pour wax la ne. bés bu ñu nekkoon maire. gestion bi nga xamante la ñuy gérer équipe espoir bi dañ koy changer complètement dinañ def de sorte que. les jeunes yi nga xam ñoo nekk Parcelles Assainies yi nekk ay chef d' entreprise nekk ay euh, ay leaders. ñëpp dugal si seen loxo. Parcelles Assainies yi euh, espoir nekk équipe bi équipe bu ñëpp pas équipe bu ñaar ñetti personnes loolu benn dans le domaine de la santé ñun ñi nga xamante ne tey nekk ñu maire nekk ñu conseil municipal. yéen a ngi def si on est parvenu à aller trouver des partenaires. Mm parce que am nañu réseau. Mm mm-hmm. à dire que si jamais on hérite du cachet de maire. Mm -hmm. on va faire de grandes choses. ok tout dëgg. ok tu es d' accord avec moi. Mm-hmm. donc mm, man li ma jaaxal nag. <laughs> cette question laa xam naa dama koy adressé le maire Moussa man mosuma gis. le maire ak équipe ñu dem andi partenariat ñu ne ñoo te yow mii yaa ngi dem États-Unis di indi ay partenaires. du États-Unis ak feneen ak feneen ak du man kese. ok am na ñeneen ñoo xamante ne. Mhm. tey ki doon woote sànq gay mhm. l'original. Mhm. action sociale da koy def en pagaille. ah am na ñeneen ñu nga xamante ne euh, damay gis ñuy def yeneen action. c'est-à-dire ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi def politique. am ful ak fayda ñi nga xamante ne bu ñu leen boole woon ci gestion bi. dina dox ku si mel ni Toumani Diallo ku si mel ni euh, Bokar Diongo. ainsi de suite. juste pour wax la ne. dañu jiital politique bi. ci intérêt commune bi. am na ñoo xamante ne tey leen boole woon ci gestion lépp nag waxuma la commune bi kese ci mhm. état beeg yooyu c'est des personnes de valeur ñi nga xamante ne. Mhm. mën nañ doxal Parcelles Assainies. Mhm. donc foofu nag dama ci euh, wax moom laay wax di wax Moussa ci xam nga. un grand bien la quoi vraiment il a du mérite aussi. Mhm. parce que lu mu am gëm boppam moo ko may. mais na xam ne tamit am na jeunes yu gëm seen bopp. Mhm. ñi nga xamante tey. Mhm. bëgg nañ li mu yor. defar passé at c'est pas que dañu bëgg a place am kut ko kut nag. c'est parce que àdduna moo demee noonu. ok da toog foo xamante il faut nga pousse mais ndaw yi ñu ñëw jéem. parce que ndaw yi nag dañu am. nekk génération bi nga xamante ne dañu andi ay xarañte yu bees. ko euh, problème lañ fa yëgoon ay bourse xaalis fu ñu détourné affaire yook yooyu ba ngeen taxawaloon benn collectif ca Parcelles Assainies coow li fu mu mujj. <laughs> coow li mu ngi si mu ngi si xam nga euh, problème yi bu demee ba egg si tribunal yi yooyu ay plainte am si. après mhm. on laisse la justice faire son cours quoi. Mhm. te quelquefois la justice est un peu dans nos. yow demoon police Parcelles Assainies. oui mais loolu c' est c' était des ay caaxaan la woon rek. Mhm. parce que ñoom ñoo porté pour divertir les gens mais du mu nekkuma ñi nga xamante ne da nga leen di porter plainte ni nax leen wala ainsi de suite. Okay. man quand tu portes plainte contre moi <laughs> c'est du sérieux. Mm -hmm. c'est du sérieux parce que. ay euh, xal ay xale mais on n'est pas n'importe qui mhm. li ñuy wax dañ koy xam mhm. des accusations mensongères duñ ko accepter qui que ce soit mhm. euh, la preuve loolu du mujj fenn mais juste loolu rek du kii mais en fait li gën a fondamental mooy exactement euh, le rôle que les membres du collectif si euh, si Parcelles Assainies parce que mm. aussi euh, ma si profiter de passage di saluer le président mm-hmm. coordonnateur euh, mm-hmm. Fall Gning mm-hmm. di saluer les membres Toumani Diallo Bokar Diong ah ñëpp ñi nga xamante ne ñoo si bokk ñoom ñoom maire bi sax génnoon na ne loolu gars yi ay politique rek moo leen tax a jug yéen politique rek ngeen di def moo tax li ngeen wax tegoo leen ko fenn moom loolu la wax ah nga li si dégg ngeen ko tamit loolu <laughs> waaw waaw Moussa moom moom moom moo ko teg fu mu nekk kon c'est-à-dire bu gisee nit ñi seen politique te au-delà de la politique c'est des mhm. faits. Mhm. c'est des choses graves la découvrir wax ko. Mhm. la ba léegi nanguwuñu génn ci télé bi wax. parce que comment tu peux concevoir. que ay école privée may commune Sénégal commune Parcelles Assainies ay bourse mhm. ñoom ñu ne ñoom ñu ne soi-disant parce que dañuy jënd ay euh, du papier ainsi de suite dañuy dañuy dañuy jël cinq mille francs par mhm. étudiant c'est c'est n'importe quoi alors que ñoom ñu ngi doon loger fay ñu fay ñu fay ñu loyer mhm. ñu ngi doon loger au sein de la mairie ce qui est bien ñu ngi doon utiliser le personnel de la mairie ce qui est encore mieux mais après l' argent bi ñuy récolter si xale yi cinq mille francs dix mille francs. dugg seen poche. mais fan lay dugg. xam nga fan la dugg d' après yow pour yow fan la war a dugg. normalement fan la dugg laaj naa la ko yow xaalis bi. xaalis bi normalement toute chose égale la dugg la war a dugg. à travers la perception municipale. Mhm. bu fekkee mënuñu sax. Mhm. may xale yi bourse bu nekkee dem nañ bu mënuñu normalement waruñu leen facturer loolu. Mhm. mais. Euh, loolu moo waral coow li le directeur du cabinet dafa créer son entreprise privée. Mhm. kenn yëgu ko. Mhm. mu commencé détourner les les bourses di ko di ko jaay bon entre guillemets quoi à cinq mille. Mhm. dix mille leen découvrir ñu condamné ko ñu ne dañuy politique. est-ce que c'est ça la politique si la politique. Mm-hmm. président de la république tegu fi ay cour des comptes ay ay ay pour lan la il faut des il faut il faut càmbar mm-hmm. dafa am si lépp ok du dëgg mm-hmm. mais nit boo amul ku la contrôler c'est tu vas n'importe quoi donc a ngi xaar di yéeg di wàcc daal ñu ngi xaar justice faire son travail te ñu ngi si di féliciter aussi Thierno Diop ak Mor Ndoye ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si côté judiciaire bi donc euh, ñu ngi si def seen liggéey bu baax a baax a baax et puis di comme mu ngi bëgg di dugg di xóotal su mu yooyu mais xam nañ na daal incha allah on a confiance en notre justice. ok te dinañu jox gain de cause incha allah très bientôt. fixation la yaa ngi ko doon wax euh, fixation la wala du fixation am mairie Parcelles Assainies tey. si man. oui non loin de là man nekk maire ak ñàkk nekk maire euh, je veux dire du tere ma tef li may def si Parcelles Assainies. Mhm. wallaay wallaay. parce que euh, gis nga ñun fi ñu teg suñu bët weesu na mairie. Mhm. en toute humilité nag. Mhm. c'est-à-dire man je préfère sax Euh, développé yi nga xamante ne moom moo nekk sama bët ak samay vision. Mhm. dimbali sama gox. Mhm. que toog si place maire bi kese tey bu ma fa toogoon ba gis ne am na jeunes yu nga xamante ne tey. Mhm. mën nañ ko téye. man ma dem andee si beneen fànn. man je préfère le céder la place il faut ñuy toll foofu. mais malheureusement ce constate mooy que nit ñi dañuy ñëw rek cramponné wu. ñun culture boobu mooy culture africaine bu njëkk ba. def ko affaire de buur maa toot moo fi jógee. je vais utiliser les moyens de la mairie pour faire de la politique. ok euh, aide so euh, euh, yi nga xamante ne c' est des aides sociales. Mhm. nga xamante ne laa war a jox ñëpp ma tànn ay quelques personnes. jox leen leen en otage non mhm. jox doo leen ko jox parce que da nga baax. Mhm. da leen ko jox parce que tu veux les tenir en otage. tabaski bu ñëwee nga tànn say nit ainsi de suite je te donne un exemple. bi ma njëkkee dem élection ñu am conseil municipal. tabaski dafa jot on nous a donné une dotation de trois xaw ma quatre moutons. le maire Moussa Sy ah. loolu ma ko si remercier mais après si la ko gëj def parce que il a vu qu'on est une opposition radicale loolu laay wax. Mhm. man xar yi may may Go du ma moo koy lekk. mais c'est des parcellois yi nga mhm. xam ne Go Faye lañ àndal ñoom la koy jox. ok mais bu nekkee sa gis-gis dafa gàtt da nga naan non ok il est contre moi donc euh, je lui donne rien du tout. Mhm. Ah, loolu lañu war a arrêter. mais Go Faye suñu xoolee Parcelles Assainies xool le ministre euh, Ba. xool Mbaye Ndiaye Alioune Badara Diouf ak ñeneen ak ñeneen Moussa Sy naam dina bëgg a birigewaat mandat est-ce que goo fay du compliqué ci ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ni naam dañ leen di xam seen tour par envergure est-ce que du compliqué Go Faye tamit bëgg mairie bi. bëgg mairie bi xam nga Amadou Ba yow xam nga ne bëggul mairie bi yow xam nga lool. <laughs> ah man yaa ma ko xamal de. non non non je te le dis kon <laughs> Ba envergure am du ñëw di xëccoog nit ñi ay mairie. ok non non non Amadou Ba feneen la teg bëtam. Hmm. Mbaye Ndiaye il a fait son temps jàmbaar la lu si bëri nag fii nii nii Mbaye Ndiaye moo ko fi defoon ah. Hmm. malgré cooli Moussa yekk na ko lu ne Mbaye Ndiaye moo ko fi defoon de. Hmm. na gaa yi na ko gaa yi gërëm si fan bu baax a baax. ñeneen ñi boo leen di comparer à Gofay mais mettons les CV xam nga dañu war a toll fi nga xamante ne il faut qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. loolu la ñu américains yi rawee. ak tubaab bi. mais ñun dañuy nekk si ay considération non il est <laughs> eh, bi may dem élection 2014 loolu la ñu war a non kii jeune la jeune mooy lan. ko xamante ne tu as plus de trente ans tu as des diplômes tu as une expérience de dix ans de travail. Mhm. tu des compétences. Mhm. mais foofu lañ ko war a def. mais pas que ay non ñii ñoo am tur man ay tur yooyu man je suis pas un complexe je mhm. suis quelqu'un qui croit à une vision mhm. qui croit à des compétences mhm. bu ma gisee ne kii moom ay ëpp compétence moom mu mën a gën a defal fii si Parcelles Assainies pourquoi pas ma accompagner ko mais pour l'instant uh-huh. boo génnee Amadou Ba uh-huh. yaa ngi dégg lu ma wax uh-huh. boo génnee Amadou Ba ak ñoom Mbaye Ndiaye ak yooyu Mbaye Ndiaye du moom du nekkaat candidat Badara Diouf nag yëpp non Diouf moom bon comme député la te yëngatuwul tamit jàmbaar la nag député la koy c'est <laughs> yëngatuwul mais est-ce que moom sax am na ambition boobu je pense pas uh-huh. parce que manifester wu ko quoi parce que nit tamit loo bëgg da nga koy manifester wax dëgg yàlla il faut il faut avoir le courage de manifester mm-hmm. li nga xamante moom nga bëgg man en tout cas mm-hmm. j'ai le courage de dire c'est ce que je veux mm-hmm. je veux aider les populations des Parcelles Assainies am naa courage u assumer ko ñeneen ñi assumer aussi je les respecte am na ñeneen ñu am ay compétences mais le moment venu teg CV ñu teg compétence yi xool les réalisations xool ñi nga xamante ne loolu lañ jot a def avant ñu nekk maire mhm. après on va voir le meilleur profil ñu tànn ko et je pense que dans ce jeu là je serai le le meilleur profil en toute humilité gars <laughs> gars yi dañ koy dañ la koy jëwee xaw ma yaa ngi koy dégg parcelle nañ naan goo fay moom États-Unis lay nekk saa bu kiiwee rek lay ñëw parcelle Parcelles nii woon ñu ne moom mouvement réaction ñu ne da ngay voyager lu bari waaw looy tontu ci loolu yaa loolu lay jëwee de ñu ne Go Faye des fois day day naqaree jot accessibilité bi bon demeewul noonu. Mhm. il voyage bokku des fois parcelle yow lan ngay tontu ci loolu. bon en fait euh, loolu je l'avoue hein, je voyage beaucoup. ba léegi je voyage. beaucoup parce que dans le cadre de mon travail dem seeti sama njaboot mhm. yàlla def sama yaay nekkul fii mu ngi beneen dëkk wax si bitim réew mhm. dama koy dem di ko seeti mhm. yàlla def tamit gis nga lal yi ngay gis noonu si bitim réew laa ko jëlee am na yeneen yu ma war a bitim réew laa koy jëlee gis nga nit ñi dañu war a sant sa yàlla si loolu Ah, tukki jëw la de jëw la non jëw bu baax la mhm. tukki dafa mhm. baax mhm. parce que ñi tukki dafa am beneen gis-gis bi ñuy am si àdduna ok tukki dem di foo nag moo baaxul mais ñun saa yuñ tukki rek lu précis moo ñu fa yóbbu te li ñuy wuti dugal ko Parcelles Assainies moo ñu fa yóbbu te bu ñu bëggee toilet waa mairie bi comme bu <laughs> ñuy tukkee ti dinañ si jël ñen yóbbu leen ñu xool ñu wutal leen ay partenaire quoi comme bu ñu wut ay partenaire euh, bi daa mel ni une minute wala deux la am na loo xam ne Euh, waxtaan nañ ko ba jeexal laajuma la ko. Hmm. tey boo ko bëggoon wax tey lan la li nga xam ni moom moom nga bëggoon wax ak ñu bàyyi la nga sant askanu parcelle naam tey instant yi ñëpp ngi déglu rajo Rewmi FM yéen kàddu nga leen di yóbbante ñoom askan wi. d'abord di commencer ci population Parcelles Assainies. Mhm. di leen wax ne. Hmm. comme ni ma koy waxee d'habitude seen doom seen frère seen rakk seen mag. Hmm. moom moo ñëwati encore une fois. Hmm. li mu commencé woon deux mille dix deux mille onze deux mille douze. di leen sonj. ci patriotisme engagement citoyen. loolu lañ nekk ba léegi. léegi nag sunu. Euh, cadre professionnel. Mhm. mais ñu ñuy def comme politiciens yi ñuy def chaque jour nekk ci terrain bi. Mhm. chaque jour nekk euh, ci politique bi. Mhm. chaque jour topp ci ginnaaw homme politique yi di photo ak non on n'est pas dans ñun li ñu gëm. mooy liggéey bu jotee ñu dem liggéey. defaral Parcelles Assainies bu jotee ñu defaral Parcelles Assainies mhm. ku ñuy xaar si mbirum ñàkk fayda dooñu si gis mhm. ku ñuy bëgg chantage aussi mhm. ay non dama ko jotuma non non non parce que bu ñu nekkee si liggéeyu jàmbur aussi on peut pas se di jël téléphone n'importe comment man je reçois plus de cent appels par jour est-ce que boo nekkee si privé mën nga di répondre ñëpp ku nekk wax cinq minutes c'est pas possible c'est pas possible parce que il faut nga toll nag si yenn niveau de responsabilité dans le cadre professionnel mhm. nga mën a xam loolu mais ñi ñuy wax loolu ay go il n'est pas accessible yenn saa sax ñu ne ma dafa ñàngal man leen non dama ñaaw rek ñàngalu <laughs> nit nag personnalité ak caractère yàlla moo koy def si nit parce que bu ma reetaanee sax nit ñi ne da reetaan reetaan bu sévère <laughs> mais nit mhm. du ma gën mhm. parce que sama xol dara newu si te mhm. yéene naa doomu aadama yi lépp lu ma yéene suma bopp du dëgg ki nga xamante ne day ñëw bëgg a politique cent pour cent ak man jëm ma sudwaaye nax ma jël suma xaalis doo jël suma xaalis parce que du ma jël sama xaalis di ko jox nit pour mu votel ma bu nekkee nit ñi lool la xaar si man duñ ma votel man li ñuy xaar si man xam nga lan la lan laa bëgg nit ñi comprendre ma vision comprendre ban genre de personne là comprendre commune des Parcelles ñu gérer ndoo ensemble la commune. Mhm. développé ndoo ko. Mhm. bu ñu demee ba pare xool suñu benn rakk wala koo xamante ne mën na ñu jox ko mu dem. Mhm. di profiter di nuyu les membres di mouvement réaction. les Mondo yi ñoom Papa lamin Gueye ñoom lamin Gueye ñoom euh, Baye Séni. Hmm, ñoom Assane Dong. ñoom Demba Soare Delzo <laughs> suma xarit suma grand ñoom Kas. voilà di nuyoo waa CDIPA aussi waa collectif bi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fa nekk euh, ils sont en train de mener un combat important euh, boo xamante ne c'est pour l'intérêt des Parcelles Assainies di nuyu aussi waa waa mairie bi di leen wax na ñu ngi góorgóorlu nag ay jàmbaar lañ ku si mel ni tuuti mbay ak ñeneen ñi mais di leen wax ne rek li ñu xaar si ñoom gisaguñ ko si ñoom Moussa si li ñu xaar si moom gisaguñ ko mi ngi mi ngi waa na yokkute muy gën a yokk humilité humilité mooy nga xam ne peut-être euh, yàlla mooy fale te yow la teg fii ñu bàyyi wax bu ñaaw bi di saagante di saaga population bi ainsi de suite te xam ne ñun ñoo la fa teg. di leen wax ne daal lép li ñu ciy wax. li nga xamante ne jub na. Mhm. ñu ngi si sant yàlla. bu nekkee am na lu dëng. Mhm. on a offensé des gens ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax ay nit kese lañ. Mhm. waa di nuyu Pape sunu waaw bu Alpha Sall bi nga xamante ne euh, bu euh, le maire Aliou benn jeune bu nga xamante ne moom aussi c'est euh, une valeur sûre. maa ngi koy bu baax a baax a baax te di ko wax ne gis nañ liggéey bi. di nuyu Mor Ndoye ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk Parcelles Assainies yi. donc di nuyu sama benn doom bu ndaw bii ngay soirée. ok mbokk yi mbégte la woon tey ñu dalaloon goo fay nekk coordonnateur bu mouvement réaction moom sant ko gërëm ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal moo di Mor moom la ñu booleeloon assistant. temps bi nga xam ni euh, yow mbalal nañu émission bi mbokk dañ leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité jërë ngeen jëf.